ca prison bu tàmba pendant fukki fan ak ñaar may dalal xel yi rekk di wax ne amul ku gañe jarta taañaañal amul ku gañ justice ci boppam moo def liggéeyam te wane na ne moom mooy li aar suñu réew justice boobu def na li ko war justice boobu def na li nga xam ne mooy li mu war a def mooy liggéey bi ñu doon xaar ci wàllu justice bi nga xamee ne teggi nañu ma loxo soxlawul ñuy wër-wërloo yéen ñi fi toog ku nekk xam ngeen ne kenn don moo nekk ci ginnaawu jàpp bi ñu ma jàpp li ñu ma yóbbu kaso kenn dong moo ma fa yóbbu ci ay pexeem kenn dong moo ma yóbbu kaso ci taxawaayam kenn dong moo ma yóbbu kaso ndax fatt naa ko kenn dong moo yóbbu kaso ndax lépp lu mu fen suba ba ngoon jot ma ñëw teggi fen yooyu leeral sénégalais yi wax leen dëgg-dëgg la mu jublu ci kàddu ya muy yëkkati kooku le nga xam ne dafay jaawale ndomba tànk yi ñu teg ci boppam parce que dafa nekk premier ministre waaye dellu nekk chef de parti ñaari ndombay tànk yooyu bu la yàlla mayul xel mayu la xalaat wu xóot boo deful ndànk ci nërmeel ngay dëkk et gis ngeen ni position bi mu nekk tax na saa su ne muy am ay information yu am solo waaye nekkit ci position bu koy may bëtam mën a yegg fu nekk mu koy jëfandikoo di dal ci kaw yi opposant di ko jëfandikoo di dal ci kaw ñi àndul ak moom xalaat noone nañu ko defee ca Bakel ni ñu ma jàppe waaye damay wax saa su ne ne dëgg du maasoog fen moo tax journaliste yi ma àndaloon ak délégation sàmm sa kàddu bi ñuy dem Bakel xam nañu laata ñuy dem ni ma ko waxee ci kanamu àttekat bi ne ko xamoon nañu laata ñuy dem ne waa parti Pastef ñu ngi waaj pour dal ci suñu kaw dogatle suñu convoi pare woon nañu parce que ñun ku ñu yab danga ñu fekk ñuy nelaw waaye tamit xamoon nañu ne gendarmerie mu ngi ñuy préparer loolu xamoon nañu ko journaliste yi nekkoon ak man ci convoi bi toll woon nañu ci ñaar fukk bi ñu yeggee Semme dëkk bu ñuy wax Semme Semme mooy dëkk bi mujj ci région bu maatam Matam ji mooy dëkk bi njëkk ci région bu Tambacounda ci département bu Bakel bi ñu yegsee seme dañu fekk ci brigade bu Semme ci kaw tali ñetti gendarme benn gendarme bi jël téléphone am di ñu filmer beneen bi ci des yeneen ñaar yi ci des ñëw di ñu nuyu ñun chauffeur yi parce que man su may jëm may dawalal sama bopp ma nuyu leen ñu ne nañu ubbi oto yi ñu xool bi ñu paree ñu ne ñu dem leen ñu nee ñu dem leen ci laa wax journaliste yi ne leen armé leen seeni caméra bi ñu demee ba Bondy moo tax ngeen gis ne bi ñu ma arrêté oto bi mu ngi daw di raam pour taxaw gendarme bi nekk sama kanam journaliste yi nekk sama ginnaaw di filmer parce que boobu man waajal naa sama bopp. moo tax bi ma gendarme bi ne nous avons reçu des ordres de nos pour que sa cortège ñu immobiliser ko ma ne ko dellul ci li nga wax mu répété waat ma ne ko dites à vos supérieurs que je serai à Bakel et ci kanamu àttekat bi ci kanamu àttekat bi la ma wax teggiwu ci virgule dañu yéggee ci pont bi ci lañ leen fekk ñu yor seen ay ngannaayu guerre taxaw baare tali bi journaliste yi duñu ma weddi ma taxaw à 20 wàcc oto bi dox jëm ci gendarme yi ma ne leen lu xew ñu ne suñu ay kilifa nee nañu dégg ngeen ko ci vidéo yi suñu ay kilifa nee nañu président dafa nekk Bakel kon sa convoi bi mënta yegg Bakel ma ne leen aha kay waaye comme yéen nee ngeen convoi bi du yegg Bakel convoi lu koy def du ay oto comme oto yi ñooy problème bi banaa fi oto yi man léegi damay dox ñu ne ma doo dox comme waruloo dox ñu téye ma ma ne leen bu fekkee ne ma dox jëm Bakel man Anta Babacar ak Thierno Bocoum bu ngeen ma mënul bàyyi ma dox jëm Bakel nañu saisir comité des droits de l'homme bu Nations Unies parce que sama droit constitutionnel la ñu ma xañ sénégalais bu nekk am nga sañ-sañu dugg dem fu la neex ci réew loolu constitution moo ñu ko may ci article 11 ma ne leen bu ngeen ma mënul bàyyi ma dem kon bu yoboo ngeen jàpp ma ma xam ne jàpp ngeen ci lañ ma jàpp dégg naa ñenn ñi sax naan nee nañu ko coppet mais man man sama coppet àndut ak yuuxu man man sama coppet àndut ak yuuxu sama coppet àndut ak sama coppet àndut ak jibi e, li ci metti rek mooy li ministre de l'intérieur le général Jean-Baptiste Tine ak njiitu gendarmerie le général Martin Faye ak procureur bu tàmba ne ñoom dañoo wane ne ay militant pastef jëfinu militant pastef dong la ñu doxal parce que ñoom ci seen bopp ñoo ruumandaat ba buggaan ñu dugal ko ci kaso dinaa ñëw ci nettali gi yëpp fañ ma dugaloon ca Bakel cellule ba ñu ma dugaloon mer gàddu bu bees ba ñu ma yónnee boole ci euh, euh, drap akub njaganaay ma tegal leen fa dra bi tegal leen fa njaganaay bi tëdd ci mbuus mi ak mer gàddu ñu jàpp ma dugal ma ci cellule boo xam ne mook toilette bi ñoo takkaloo bu ñuy saw ci toilette bi da koy dégg leneen lu mu àndalit da koy dégg ngeen xamee ko noonu lañu ci jublu woon lañu ci jublu wax wax ju wax ju yegg dafa ko moom lañ ci jublu woon mooy toroxal ma mais xamuñu ne man ku ma xam xam ne der la man ku ma xam-xam ne góor yàlla piir la man li ma suñu boroom dénk mun naa def ëllëg su ma lekkee dañ maa yakkal et ñi may àndal xam nañ ne awma problème yooyu bi ñu ma jàppee le samedi 10